ne. sunu tànk yii. sunu tànk yii. yàlla rek. yàlla rek tax. sunu tànk yii. sunu tànk yii. yàlla rek tax. yàlla rek tax. sunu tànk yii. sunu tànk yii. di sunu tànk yii. di sunu tànk yii. yàlla rek tax. yàlla rek tax. wax naa ba tey ne. sëriñ bi ne. wax naa ba tey ne. maa ngi muslu ci buur bi. maa ngi muslu ci buur bi ci oo sama moromam jaam ci oo sama moromam jaam jëme ko ci loo xam ne jëme ko ci loo xam ni dina ko jural réccu dina ko jural réccu wala yeddeel wala yeddeel réccu bi ne réccu bi kilo yeddeel gi gi boromam la ñu kii mënul sunu tànk yi sëriñ bi ne sunu tànk yi ma yàlla rekk a tax ma yàlla rekk a tax sunu borom sunu borom dafa nëbb ay yëfam dafa nëbb ay yëfam ñennat ñennat bé bé soo gëmee peyug ëllëgam soo gëmee peyug ëllëgam doo gaaw a tàyyi ci def yiw doo gaaw tàyyi ci def yiw te def yiw te def yiw mu ngi ca gannaaw farata yi juróom. mu nga ca gannaaw farata yi juróom. def yiw def yiw. mu ngi ca gannaaw asaka. mu nga ca gannaaw asaka. def yiw def yiw. mu ngi ca gannaaw dem màkk ba ñëw. mu nga ca gannaaw dem màkk ba ñëw. ci jeexlu ne demee ci jeexlu yaa ayyuhan naas. yàlla fay wax. ne yàlla nga fay wax mu sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi neel jaam yi neel jaam yi ñi gëm ñi gëm na ñu julli farata lu ñu julli farata ñuy julli farata na julli farata mooy us judoo ne mooy us judoo war kaawu war ñuy naafila te it naafila foo fekk ñu def ko tarkib ne foo fekk ñu def ko tarkib te maanama di men soo ko séddalewul soo ko séddalewul ku lay déglu du la dégg ku lay déglu du la dégg wala taxsaw fi l ardi mufsidiina ne wala taxsaw fi l ardi mufsidiina taxsaw taxsaw yàqalay firi yàqalay firi mufsidu mufsidu yàqalay firi yàqalay firi doo ko tegle xanaa doo ko tegle xanaa bu ne nga firi ko yàq bu ne nga firee ko yàq du dugg du dugg كنا نفرى تحسو كنا نجي فرى تحسو بكو تير المفسدين مي تي توب مو ديغ بكو فير المفسدين مي في توب نا تي مو بكو ديغ داغا نان ولا تحزو ولا تحزو بولين ساخ ساخي بولين ساخ ساخي مفسدين مفسدين بري نا تيجي خاوما كو بيرت واي نون بوكو نيتي خاوما كو بيرت واي نون بوكو نيتي جولي جولي بو اندو الله بو اندو الله تتسبار فاتكو te tisbaar faatu ko. te mu julli ko ci mbooloo. te mu julli ko ci mbooloo. te dañewul. te dañewul. ñu booleel ko ci fi ko ci euh, nañ koy wax désert. ñu booleel ko ca désert. kooku perte. kooku perte. jullit bi endu àll. jullit bi endu àll. takkusaan faatu ko. takkusaan faatu ko. te mu julli ko ci mbooloo. te ci mbooloo. booleeg ñu jox la ginaar gu ñu ruti ñu jox la ginaar bu ñu ruti nga xool kanam goo mësul a gis nee nga xool nag kanam goo mësul a gis googu jaamu yàlla googu jaamu yàlla ku ko mën a am a am kenn bari na ci yéen sëriñ bi ne bari na ci yéen tey tey ku julleeg ku mu mësul a jullee te ku julleeg ku ñu baal te ku julleeg ku ñu baal ñu baal la ah benn la bari na tey ku ku lekk sëriñ bi ne bari na tey ku lekk ak. koo mosula bokkal bokkal. te ku lekk ak ku ñu baal. te ku lekk ak ku ñu baal. yàlla baal la yàlla mbaal ak mbaa wii. gi mbaal ak laaw wii. ak ak naax bu. naax bu bu bu teerandoo bii na nit di iñaane nan la nit di añaane ba ne bu soobee yàlla de ba ne bu mbaal mi teeree ba mbaal mi teeree du ndawalu sax du ndawalu sax ak añaane yaa soxor waaye yow yaa soxor nag waaye mbaal mi géej sax mbaal mi waxuma sax jën muy dund waaye géej sax ak nit tey jii tey jii sanga bu baax bi sanga bu baax bi jikkoom yu rafet jikkoom yu rafet jural ko mbooloo mi jural ko mbooloo mi lu ñu tax a jóg lan moo ñu tax a jóg yàlla yàlla yàlla koo ciy teg koo ciy teg sallallahu alayhi wa sallam waaye teg leen ci kenn yéen tam sallallahu alayhi wa sallam waay ashraf al xalqi mais yéen nga ne mais yëg nga ne sew sew bu rëy ngi sew sew bu rëy ngi bari na fu waay dëgmal sëriñ bi ne bari na fu waay dëgmal di fa uti yàlla di fa uti yàlla defaale ca xelam defaale ca xelam foofa foofa bu gisulee diw bu gisulee diw du am yàlla du am yàlla bari na bari na. si euh, siyaar naa ba noppi. nee siyaar naa ba noppi. waaye gisaguma sëriñ. waaye de gisaguma sëriñ bi. lu ci sëriñ bi doon bi nga siyaaree. waaye yow bi nga siyaaree ba noppi lu ci sëriñ bi doon. tey tey dañuy seeti sang bi. dañuy seeti sang bi. ci la ñu yem. ci la yem. waxuñu ak. waxuñu ak. lieu boo fi dëkk mën lieu boo fi dëkk mën muy jaamukaayu yàlla muy jaamukaayu yàlla da nga naan maa nga seeti yàlla foofa foofa ak allahu akbar yàlla ka bañ ak yàlla ka bañ ak yéen a ngi déggal sëñ bi wax ñun ñun mënuñu lu ñaanal ko. mënuñu lu dul ñaanal ko. borom njort lu ñaaw lële. borom njort lu ñaaw lële. gàtt xam-xam. gàtt xam-xam. soxor. soxor. di waxi waxam. di waxi waxam. nun day faale wuñu. nun daal faale wuñu ko. nit indi na ci meeting ba tey. nit indi na ci meeting ba tey. tisbaar faat ko. tisbaar faat ko. mu dëñe. mu dëñe. waaw. bi ne nit yendu na fii. ci congrès. paas lu bari. jóge fu sori. waxtu tisbaar faat la. te añu la. <laughs> nun nag nun nag gàcce waay waay gàcce ngalaama waay gaa yaa ngi yor njàpp yu tey xam waaw ci yàlla léegi jóge ci yàlla léegi ñenn ñaa ngi jiix ñenn ñaa ngi ñenn ñuy sokkorootu te te am na kanam yoo xam ne am na kanam yoo xam ku leen gis ku leen gis dem ajjana dem waaw billaahi wallaahi tallaahi tallaahi point boobu rek lay dox point boobu rek lay dox ma ne ma ne jàngantu baaxul de jàngantu baaxul de jàng piir jàng piir mbaa bàyyee bàyyi mbaa bàyyi mbaa nga tëj ci gémmiñ eh, mbaa nga tëj nag sa gémmiñ maa ko bërki ne wax naa ko bërki biig ci jàng yax la man laa biire leen lu tuuti man laa biire leen nag lu tuuti jaamu yàlla yëpp jaamu yàlla yëpp ay condition la ci yàlla teg la ci yàlla teg soo ko rempaliwul soo ko rempaliwul du nangu du fay du ba mu des juróomi jaamu yàlla ba mu des nag juróomi jaamu yàlla amul condition noo ko defee yàlla jël noo ko defee rek yàlla jël gaa yooyu matu la xam. Ah, ah kay gaa yi yooyu matu la xam. Ah, condition yi yàlla teg ci julli ni mu diise. sëriñ bi ne condition yi yàlla teg ci julli ni mu diise. ba ñu ko matal ñu néew la. ba ñu matal condition yooyu ñu néew la. yi mu teg ci koor gën koo diis fuuf. yi mu teg ci koor ñëw nag gënati ko diis fuuf. mu teg ci jàngal xuraan gën ko diis fuuf yi mu teg ci jàngal xuraan gën ko diis fuuf. te loo ci dos. te loo ci dos. te defe ko na mu ko waxee. te defe woo ko na mu ko waxee. du kon doo jéem a xam. kon yow doo jéem a xam. yi amul condition. yi amul condition. ndax nga di ci defaree. ndax boog nga di ci defaree. yañ jox condition jox condition te mënoo am jaru ko. ah kay am jaru ko. ah kay. juróomi jaamu yàlla yi sëriñ bi ne. juróomi jaamu yàlla yii. noo ko defee rek. noo ko defee rek yàlla nangu. duudu ku taxawal di julli. ku taxawal di julli. te yoru la tiim. te yoru la tiim. yoru la njàpp. yoru la njàpp. dinañu nangu sa dinañu nangu sa wax leen déedéet bu baax déedéet. ku yor njàpp nag ku yor njàpp nag mbaa nga yor tiim gu wér mbaa nga yor tiim gu wér taxaw di julli taxaw di julli te jàngu la faatiha te jàngu la faatiha dinañu nangu sa nangu sa julli déedéet waxuma sëriñ bi ne nag waxuma pay gu ñu wàññi pay gu ñu wàññi mais ñàkk laa fay. mais ñàkk laa fay. définitivement. définitivement. dégloo. ngeen déglu. leen. déglu leen. leen. fukki minute ak juróom na fi des. sëriñ bi ne li nu fi des daal fukki minute ak juróom la. kon ngeen déglu nu àggal kon àggal juróomi jaamu yàlla yi nga xam ne juróomi jaamu yàlla yi nga xam ne noo ko defe noo ko defe yàlla nangu ko yàlla nangu ko moom laa leen di wax moom laa leen di wax leeralal sang bi. leeralal sang bi. góor yu baax yi bàyyi seen kër. góor yu baax yi bàyyi seen kër. ngir bëgg ko lool. ngir bëgg ko nag lool. àndandoog man. àndandoog man. seeni tur. seeni tur. ñu ñaan. ñu ñaan. jofi. jofi. waaye billaahi. waaye billaahi. xur mii. xur mii. ku ci for tey. ku ci for tey. boo jofee. boo jofee. di nga yóbbuwaale. di nga yóbbuwaale. ween yoo xam ne. ween yoo xam ni. meew ma ca nekk. meew ma ca nekk. ku ko ratta naan ko. ku ko ratta naan ko. dootoo mar. dootoo mar. ba tabbi àjjana. ba tabbi àjjana. Allahu akbar. foofu baax na de. waaw. Allah. xur mii nu foree. sëriñ bi ne. xur mi nu forete bu ñu jëfee jàmm bu ñu jëfee jàmm dinañu yóbbuwaale ay na yanaat ay yanaat yoo xam ne batt ba yoo xam ni batt ku ko naj meew ma ciy génn meew ma ciy ku ko naan dootoo mar dootoo mar استقبال اين المغوري ايا او ميتا افدلوا ان الله من استقبال اين الكعبة الله اكبر واحد قال له لول دي خول ني خول كيف جي دم تخجو كيف جي نخمني مونو تخجو فينو توك فينو توك moo gënal yàlla. moo gënal yàlla. xool kaaba gi xool kaaba gi. allahu akbar. ñun ñii fi toog. mais ñun ñii fi toog. kenn ku ci ne. kenn ku ci ne. xool sa kanam. xool sa kanam. moo gënal yàlla. moo gënal yàlla. xool kaaba gi xool kaaba gi. lu tax. istiqbaalu aynal muzawwiri. afdalu min istiqbaari aynal kaaba. waaw Abdou Diouf président de la république. ne Abdou Diouf président de la république. yàlla na ko yàlla doole jàppale. yàlla na ko yàlla doole jàppale. képp ku nekk ci mbooloo te am nar nar bu rafet ci réew mi yàlla na ko yàlla jàppale. képp ku nekk ci réew mi nekk ci kanamu mbooloo te am nar nar bu rafet yàlla na la yàlla jàppale. waaye. waaye. waroon na leen a dogal ak ñi mel ni yéen. waroon na leen a dogal ak ñeneen ñi mel ni yéen. am na lu ñuy ñaan ay at. am na lu ñuy ñaan ay at. ñu ngi sant yàlla. ñu waaye jotaguñ ci ni ñu ko bëgg. waaye kat jotaguñ ci ni ñu ko bëgg. mooy dal. mooy dal. jàmm. jàmm. ubbeeku ubbeeku. wërsëgu yaa yaa. te. te. bari na. bari na lu nit mën a amee ci dex lu nit mën a amee ci dex lu mu mënula amee ci géej lu mu mënula amee ci géej li géej di ëpp ëpp ëpp dex li géej di ëpp ëpp ëpp dex arab nee na arab nee na ربما يوجد ربما يوجد في نهر في نهر ما لا يوجد ما لا يوجد في البحر في البحر الله أكبر duudu duudu xam nga paañ xam nga paañ waaw yoxoos nag yoxoos waaw dex yii dex yii ak sadaf ak sadaf ci lañ koy amee ci lañ koy amee amul ci géej amul ci géej yiw yiw ci buntu kër lañ koy séentoo ci buntu kër lañ koy séentoo waaye waaye léeg-léeg mu jaar ci pot mu jaar ci pot waaw loolu wér mën na mën na ci coobareem ci coobareem la ñu dala ñaan la ñu dara ñaan ba ñaan gii paase ajuma ba ñaan gii paase ajuma xalifa bu tëdd bii xalifa bu tëdd bii xalifa bu euh, ragal yàlla bii. xalifa bu ragal yàlla bii. xalifa bu sell xol bii. xalifa bu sell xol bii. bu laa biir bii. bu laa biir bii. joxe ko joxe ko. ajuma ji paase. ajuma ji paase. yàlla mën naa dogal. yàlla mën naa dogal. sunu àggaleeg tey gii. sunu àggaleeg tey gii. di bopp. di bopp. bu mën jafal. bu mën a jafal. nganjam yooya. nganjam yooya. ngañ ngañ na takk tàkk de. ngañ mën naa tàkk de. waaye bu ko boobu ronu wul. waaye bu ko boobu ronu wul. ngañ nga naan du gaaw a tàkk. ci gàttal. ci gàttal. ñun ñëpp. ñun ñëpp. kenn ku kenn ku ak ñi mel ni nun ak ñi mel ni nun dem fu mel ni fii dem fu mel ni fii ku ci ne ku ci dama lay xamal ne dama lay xamal ne ci lu wér ci lu wér fa nga jóge fa nga jóge mu sori. mu sori. mu jegeñ. mu jegeñ. jéego bu nekk. jéego bu ne. yàlla dina la ko defal. yàlla dina la ko defal. bildin ci àjjana. bildin ci àjjana. te yaa koy dëkkee. te nag yaa koy dëkkee. dem. dem ak dellu si. ak dellu si. bankal sa baaraam. xam nga jéego. xam nga jéego. mooy diggante. mooy diggante. dëggu ak dëggu. dëggu ak dëggu. jéego yooyu. jéego yooyu. dañ lay defal ay building. moom la ñu lay defal ay building. dem ak ñëw. dem ak ñëw. mu des nag dëggu yi. mu des nag dëggu yi. dëggu gu ne dëggu gune. dañ la koy jëmbatal tàndarma. dañ la koy jëmbatal tàndarma. ca àjjana. ca àjjana. nga koy lekk. nga di ko lekk. allahu akbar. ñaata ngoog. ñaar. fi nga jaar. fi nga jaar. oto nga dugg. oto nga dugg. welo nga war welo nga war. da nga tànk da nga tànk. moteur moteur. yàlla day tibbalu suuf si. yàlla day tibbalu suuf si. yóbbu ko cim réew. yóbbu ko cim réew. mu néew lislaam mu néew lislaam tas ko fa. tas ko fa. ku ci dëgg ku ci dëgg. balaa ngaa dee balaa ngaa dee. tuub tuub lu mu jaamu. lu mu jaamu nga am sa. ah jar na ko ëpp. ñaata ngoog ñaata ngoog ñett ñett. bi ko ñeenteel. bi ko ñeenteel. mu des poussière yi dàll yi. mu des nag pëndub dàll yi. ak mbubb yi ay malaaka ngi taxaw ay malaaka ngi taxaw yor ay butéelu yor ay butéelu wurus yu weer yu weer di jël pënd bi di jël pënd bi ak poussière ak poussière bi di naaw ak moom di naaw ak moom di ko yóbbu ci réew moo di ko yóbbu ci réew moo xam ni jullit ya jullit ya ak yéefar ya ak yéefar ya ñoo fa jaxasoo ñoo fa jaxasoo te yéefar yi ilif leen poussière booba poussière booba. la ñuy ëf la ca xolu ca xolu yéefar pour ñu mën a yërëm pour ñu mën yi. seetal liy njëriñ ci seet. seetal rek yi njëriñ rek ci seeti sa moroomu jullit. yàlla na yëg yàlla nangul yëpp. sëñ bi ne yàlla na yàlla nangul yëpp wax na la amiin. jaamu yàlla yi jaamu yàlla yi amul condition. mooy xool sa kanam mi mbokkum sa sa kanami way jur mooy xool sa kanami way jur booy xool sa way jur booy xool sa way jur te mu di jullit te mu di jullit soxlawul laa ilaha illallah ci suuf soxlawul laa ilaha illallah ci suuf soxlawul jàng alxuraan. soxlawul jàng alxuraan. xoolal rek xoolal rek. tuyaa baa ngi daw rek tuyaa baa ngi daw rek. ngay xool rek. tuyaa ba jaa ngi daw. booba jamono. booba jamono. booyee boo teewlu. booyee boo teewlu. booyee boo bañ a teewlu. booyee am sobe. booyee boo am janaba. sans condition. sans condition. la ilaha illallah. bankal sa baaraam. bankal sa baaraam. ñaareel ba ñaareel ba xool kaaba gi xool kaaba gi xool kanamu jullite ko gën a foor xool kanamu jullite ko gën a foor lu tax lu tax kaaba gi kaaba gi li ñuy foor yëpp li muy foor yëpp nit a ko liggéey nit a ko liggéey ku ñuy wax Ibrahima ku ñuy wax Ibrahima kanamu jullit kanamu jullit yàllaa ko liggéey yàllaa ko liggéey kon liggéeyu yàlla kon liggéeyu yàlla moo gën a foor moo gën a foor Ibrahima lu Ibrahima liggéey ñaata leen laa leen wax ci jaamu yi amul condition. ñaata laa leen waxagum ci jaamu yi amul condition. sa kanamu papa ak kaaba gi. sa kanamu papa ak kaaba gi ñu parce que kaaba gi. parce que kaaba gi. heure heure. bu ne bu ne. dinañ ci wàcc. dinañ ci wàcc. cent vingt. cent vingt. mille. mille. ci yërmande ci yërmande. séddale ko. séddale ko. ñetti paar. ñetti paar. soixante soixante ñu jox ko ñuy wër. ñu jox ko 40 40 ñu jox ko ñuy julli. ñu jox vingt. ñu jox ko ñuy sétal ñu jox ko la ilaha illallah. soxlawul jàng soxlawul jàng ma déy leen secret bu rëy ma déy leen secret bu rëy daaw jéeg daaw jéeg dem nañu medinatul munawara dem nañu medinatul munawara fa la fekk sang bi fa la fekk sang bi sëriñ Abdou Aziz si sëriñ Abdou Aziz si حفظه الله حفظه الله ونزله ونزله وقواه وقواه منما منمه سجن يباخي سجن يباخي تي ما وخ لنجري تي ما وخ لنجري نغا وخ لنكو نغا وخ لنكو نديكو جريو نديكو جريو دغلو سوخنا سي نوتاخ جو سوخنا سي متاخ لو جو ci ñi daan jëflanteeg Seydi Hadji Malick fii. ci ñi daan jëflanteeg Cheikh Seydi Hadji fii. dëkk bii ak yoof gii. dëkk bii Tiwakaam daan na wax ni sama wanak la ñu. Cheikh Seydi Hadji Malick si war naa àgg ci fi mu ne ci téeméeri ak. way way juróom. nekkoon waliyu kaamil. nekkoon waliyu dégg naa. dégg naa. Maodo mas na ko seet si. Maodo mas na ko fekk mu dem tool. fekk mu dem tool. Maodo fekk ko tool. Maodo fekk ko tool. waa kër gi ne xaaral ñu ooy. waa kër gi ne xaaral ñu ooy ko. mu ne mukk. mu ne mukk. fekk ko tool. fekk ko tool. jël gopp. jël gopp. di béyandoo moom di béyandoo moom. ban jotaay ngeen mën a dem tey. ban jotaay ngeen mën a dem tey. bénéfice fa borom at yu toll nii. bénéfice fa borom at yu toll nii. man di ci leeri tariqa bi. man di nag ci leeru tariqa bi. l'islam bi ak bi. amul amul. ma àggali. sëñ. dégloo. ak kaamil ab xool xool kaamil soo sobee soo sobee waxuñu laal waxuñu laal xool foofu nag laa jàdd ne ma wax leen ñaari secret foofu nag laa jàdd ñaari secret yàlla yàlla yokk sa fan soxna see ñaanal alaaji Moussa ak alaaji bëtu yërmande yi ma xool ne bëtu yërmande yi ma xool kuloore ko cofeel dooro wax ak góor gu mandu gii googu ñandu tag du allahu akbar xuloo amin ah, kaamil ci des kaamil moo ci des soo koy xool ne soo koy xool amul condition amul condition dañu lay bindal tuyaaba ba ba ngay teere. ba ba ngay teere. ani burhaan. burhaan. burhaan. ba ba ngay teerale. moo tax téere ne. ñetti tuyaaba kenn nit mën na koo dàmbale kenn nit mën na koo dàmbale ci benn place ci benn place mooy lan mooy lan ànd ak sa baay dem màkk ànd ak sa baay dem màkk fekk muy borom xam-xam fekk muy borom xam-xam mu yor kaamil mu yor kaamil wéeru ci kaaba gi wéeru ci kaaba gi xool kanami borom xam-xam xool kanami borom xam-xam jaamu yàlla jaamu yàlla xool kaamil xool kaamil جامو يالا خول كعبه دي جامو يالا خول سكرن بابو جامو يالا نغا دامبالي كات ماندا سي سبن خول خول كانامي بوروم خام خام جامو يالا خول القران jaamu yàlla xool kaaba gi jaamu yàlla la xool sa kër mi bàyyi donte amul xam-xam jaamu yàlla la léegi nag ànd nga ak sa bàyyi ànd nga ak sa bàyyi muy borom xam-xam yor kaamil wéeru ci kaaba gi muy kat nga dàmbale xoolandoo sa pap kaamil bi kaaba gi borom xam-xam allahu akbar allahu akbar sang bi. sang bi. Guèye Guèye. sëriñ bi ne. mu ngi lay nuyu bu baax. ak sa soppe. ak sa soppe. say soppe yi ma ànd say soppe yi ma àndal. am na dëkk bu ñuy wax géeréw. am na dëkk bu ñuy wax géeréw. Iliman ja. Iliman ja. Naayib ja. Naayib ja. góor ña. góor ña. ak jigéen ña. ñoom ñëpp ngi. ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu